yëngal ci suuf yàlla may ñu ndam ñu dem ñibbi. looy wax waa Géejawaay. ñu ñëw ci jàmm rek. ak ak daaw mais temps yi nag waa Géejawaay bataille psychologique bi gis nañ temps am benn xale bu fa génn 5 tonnes am na yoo xam ne dama nekk sax moom bu mu ci tontu. da nga ne bu mu ci tontu. waaw dama nekkoon bu mu ci tontu. mais ba ngeen déggee coow li lan ngeen lan réagirul dara parce que bataille psychologique yàgg na ci làmb ñun ay doomu mbër lañ ñun ay doomu mbër lañ bataille psychologique yàgg na ci làmb Papa Kane moo doon biir ak Dobalees mais Papa Kane Baye Modou moo ko jur te Baye Modou moo ma Njaati Njaay mooy ndi jaayam moo jur yaayam ñun ay doomu mbër ñun danoo ne ci làmb xam làmb ñun tëbu ñoo tëb rek ñu may ñu loxo ñu dugg ci làmb déedéet. rek dafa judd fekk ngembali ci ngembali ci kër ga kenn mayu ko loxo. rendez pour ñu ñëw en masse supporter Reug Reug yàlla may ka ndam ñu ñibbiwaat Thiaroye Géej feete suñu victoire. jërëjëf kontaan nañu fenn jërëjëf. jërëjëf. kaay nii kaay nii. xam nga. li wóoru kat. lii Reug Reug di def moo ko dàq foofu. ay champion hors pair rek nga gis ñoo wër Reug Reug. xam nga nit ñi nag naa ngi nit ñi nag. ñu ngi naan daa jël poids ak daa jël nangam. mais bu jour ba ngeen gis ku gaaw ba mel ni melax ci kattanu yàlla yàlla na ko yàlla lafal cat nag. parce que poids bi bi mu ñibbisee ak tamit xale la xale la boo xamante ni nag wax dëgg yàlla daa téye njàmburam booy bi nag daa téye njàmburam nag bokkul ak yeneen er eh, booy bi du baali de baaliwul de demul soirée de waaw demul soirée de. Ah, waaw géej waaye am na am na lu ñu wax ku ko mës gis ci soirée wala benn ku waxal. du baali de. waa Géejawaay li ñu waxoon nag. ñoom dañuy seeni wax lañ yor ju ñaaw ñoom ñoo xam loolu xam nga booy bi génnaan na tuub dégg ngeen ko li mu wax dañ ko yónni rek dañ ko yónni xam nga champion hors pair lañ wax dañuy dama leen ñaan rek pour ma tënk wax ji Salif Sakho su arbi neefar doxal suñu kaw su arbi neefar doxal suñu kaw dina teel a libéré supporters yi. déggoo li ma la wax moom moo wax de ñun ba léegi déggoo ñuy wax ñun li ñu wax dañ ne ko fukki jël ñu daan la benn bu nduroowul ak sa morom te billaahi wallaahi ni mu ko waxee noonu lañ ko gëmee ñun ñii ñun ñii ay baayam noonu lañ ko gëmee di wax nag yàlla ñu yàlla lafal cat fii signature moo ñu fi indi xeex indi wuñu fi ku nekk na ëmb sa mbër teg ko ci yoon xam nga yàlla lafal ñu cat. yàlla na yàlla jàmm ay ca rëg di wàcc. am am am ngi noonu rëg a ngi noonu di waaj a génn ay garaaw si aarul bëgg ngi noonu doomu caaro yaa ngi noonu saan xale baa ngi noonu kii mooy rëg-rëg kii moo bëreenu kii moo woon ak Elton xale bii moo bëre woon ak Gris 2 xale bii moo bëre woon ak Robert Saloum xale bii moo bëre woon ak ndeysaan ndeysaan prise de kii mooy xale caaro bi mun nañu wax ne xale januwaar bi xale mbundee bi xale baasuul bi xale baasaar gi kooku mooy Reug Reug war a laaleeg Sa Thiès oh am ñaar nee naa leen làmb ak fi mu mu toll saan concentré wul foofu ba pare rek. mi ngi def ay dernier rek la azam. borom tëb. voilà sama saa nga de saan maa ngi koy meññee di ko def jàppal benn benn moom rek rek. duma noonu eh, ndeysaan san kenn du moom nee la kii mooy rek rek xale bii moo bàyyi ko caaro yi ndeysaan baasul baasaar jirnda mundee farya ndeysaan xale bii moo moo nekk ci keppaaru Père Khadim Ndiaye idi ko la xam-xam la ci lutte simple yaakaar naa ne yàgg ngaa seetaan rëg-rëg ci simple bi tey lan ngeen ñu mën a wax ci rëg-rëg ci lutte simple bi ak li mu ci xam nga rëg dafa déparé simple arène la déparé dafa déparé arène problème adversaire soo xoolee rëg-rëg 2013 ba léegi mu ngi compétir les simple so champion yi ngay dégg si lutte simple yëpp kii laa la naak ñoom soo xoolee Reug Reug laa leen ak Mamady Ndiaye Reug laa leen ak Mamady Ndiaye <laughs> Reug Reug mu laaleeg Mamady Ndiaye laaleeg Franc laaleeg Caaka Faye ñu ne déet dafa dugg daan fa Balla Gaye Senior. ah njëkkoon na fa dugg avant daan fa Balla Gaye ñu ne déet mu duggaat fa daan ne fa la yem. ñu fa la mu ne déedéet mu duggaat fa. jël dofu géeje daan guy gi. bi nekk ah. quatrième sa avant boobu dafa dugg diggante ma Clinton. Clinton Clinton bu waalo. wax nga mbër wi wax nga dëgg. kon Reug Reug mi miin na waa géeje waay. miin na waa géeje waay. ndax ñu bëri dañuy fàttali ne bëri naa Clinton. bëri naa Clinton maa xam Clinton. maa ah, bëri naa Clinton. ñu ñu kase ko def ko par dix verdict sans verdict kon xale caaroy la ndax fan laa jugee fan laa juddoo hmm? ñu ne caaroy keppaaru kan suñu maam papa kan te xaare ko àjjana keppaaru kan suñu papa Xaadim Ndiaye un at Xaadim Ndiaye deux keppaaru Issa Pouye ak Ousmane Diop Forman te ngéej la waaye ba tey caaroy la caaroy ndaanaan lu ne jugee na fa caaroy ndaanaan lu ne yàgg naa jóge caaro yi di compétir si kon moom du fa def ña ko jiitu luñ fa defoon waaye marqué na empreinte am si lutte simple waaye marqué na empreinte am si lutte avec frappe. ñu ne fa lay yem mu dem ci MMA ba. que xam nga ne Reug Reug mooy seul mbër mi nekk équipe nationale ba ni mu ñëwee ni amu fa defet di na. dem na drapeau chef d'état dem na CEDEAO dem na Niger. kan moom mos a seetaan ne mos naa gis rek daanu équipe na ma ni man de mos koo dégg. kon jeex na. lim lim daanu ci li simple dañ koy compter. waaw day bëree Sa Thiès tam laa saab bii la bu képp timis la. Mhm. saa boo ko dàqee si gerte bu sori. bul sori. day ñëwaat. guddi guddi day dellu ndax soo xoolee Sa dafa bëreeg wuli ñu ne déet Sa Thiès bëreeg ñu ne déet Sa Thiès Jordan. ñu ne déedéet Sa Thiès bëreeg Boy Ngaay Sa Thiès bëreeg Neko Réel bëreeg Zarko Sa Thiès bëreeg Malick Niang bëreeg Boy Niang bëreeg Siteu moom Sa Thiès ñu bëri na Sa Thiès dafa am retard ci làmb ndax yaakaar naa am na defet yoo xam bokk amul woon fi mu ne nii moog rek rek làmb du leen boole. xam nga léegi làmb du ak maas dabante la. dabante lay doon. est-ce que xam nga ne ñoom ñaar 16 16 la. 16 16 ça veut dire. Sa Thiès 16 combats la. deux défaites. rek 16 combats la am ñaari sans verdict. ñaari sans verdict kii deux défaites kii deux sans verdict. Clinton la amal sans verdict ak Pape Robo. macha allah Pape Robo bu yëmbal. waaw. Idi bu moo di sori. li ngay wax dafa am solo macha allah xam nga rek dama di ndaw. ndeysaan dama di ndaw sama xam-xam bariwut. topp lamb. waaw sama xam-xam dafa bariwut si lamb moo tax. bay sawar macha allah. ndax li nga ñu wax tey bëri na ñoo xam ni nekk nañ ci làmb te xamuñu ko. xam nga tey jii euh, ñu si bëri bàyyiwuñu xel ne kii jëmm ji nii di Reug Reug bëri na ak Clinton. Clinton kon combat am bii nii mooy quatrième combat yu mu dugg géejawaay. yaa ngi wax lu am solo. est-ce que li mu dugg ci Caaroy bëri na. Sa Thiès Caaroy. su ma juumul na fa diggante mag na ko réel ndax Lamsaar ak Caaroy benn la waaw. wax nga dëgg. at ban. yaakaar naa moog bi. bëriwut rek Tidiane la bu lamb doxee. sama xel dina ñëw. sama xel day doxu. yow ñoo far yow. xaw ma dara si yaa ngi ciy bay sa waar. idi isaan gonek caalaan gaa ngi noonu gonek mbundee gaa ngi noonu gonek faliya gaa ngi noonu nee naa la gonek caalaan gaa ngi nii gonek mbundee gaa ngi nii gonek faliya gaa ngi nii gonek baasul gaa ngi nii ndeysaan ñëwale ndeysaan soo xoolee soo xoolee saa ca rëg-rëg gi noonu mais usine mais Sa Thiès Couleur baa ngi noonu koy usine jëlal ma usine usine usine ah dañuy for rek di indi waaw waaw dañuy for rek di indi usine bu ndàngal maa ngi noonu ndeysaan ndeysaan rek mu ngi noonu ànd ak Coly Faye 2 ndeysaan ñu ne ñu gis seex siika mbay bu mag bi seex <laughs> a ngi noonu siika mbay bu mag bi tonay Xaadim Njaay baa ngi noonu rek dafa ñëw ànd ak sikambaay bu mag bi muy seex daan rek a ngi noonu ànd ak doom ndeyam seex ku xam seex xam ko rek rek saan kenn du moom e layti miin na yalte e yaya wasanga me bom yoon fa layti jagaan e layti kor adam diouf e layti miin na yalte da koy rëkk saan seex a ngi noonu si kambay bu mag bi saan mu ngi noonu rëgg a ngi noonu kan moom xadafi bu joof yor moom xadafi bu